jërë jëf mbokk yi dal leen ak jàmm fii ci Jéego l'Espoir ñu ñëw ci discours bu première dame bu Sénégal euh, muy Marie Coll Faye ci invitation bu ko première dame bu Chine defal madame Peng Liyang euh, tey ji mu participer ci conférence bi nga xamante ne moom lañ euh, à l'éducation des filles et à l'autonomisation des femmes euh, ci discours am moom euh, première dame du Sénégal euh, wax na njëriñ li nga xamante la éducation am comme levier puissant pour réduire les inégalités et favoriser la paix dans le monde ba léegi wax na initiative bi nga xamante Sénégal am que la maison d'éducation Mariama Ba et le programme paquet yi qui œuvre à renforcer la présence des filles dans les filières scientifiques et techniques ba mon premier premier le Sénégal mu mobilisation internationale pour nous garantir que chaque chaque fille euh, ak une mu mënti dina am accès ci éducation de qualité bo xamante euh, ko ba nga xamante dina mëna a bokk ci liy euh, yokku aduna bi ba bokk ci li nga xamante moy progrès de l'humanité engagement bobu nga xamante mom moom am ko day viser un avenir où les femmes et les filles soutenues par l'éducation pourront pleinement participer au développement et la prospérité de nos société donc muy discours bu am solo bi nga xamante ni la première dame di Sénégal madame Marie Kon Faye euh, def na ko tey fële ca FOCAC bi nga xamante ne organisé woon nañ ko fële ca Chine. ci ñëw ci yaatal gi dañ leen di wax képp koo xamante ne danga bëgg dégg dégg anglais ci nu gaaw ci diir bu gàtt dama ne demal seeti waa ay yi ñom nga xamantene am nañ ñaari centre de formation fi ci Sénégal waaye fële ci Rwanda am ay kat yu xarañ macha allah mën li ñu def képp ko xamantene da nga leen bëgg contacter au leen seen numéro yoyu 77 297 11 92 wala 77 100 00 11. dañuy def ay cours en ligne mais ak FII da ngay wax anglais num la nexé donc gars contacter leen na gaaw féké da ngeen bëgg anglais comme ni ko le président de la république Jomaay dégg rek donc woo leen waa FIE ñu teg leen ci yoon jàngal leen. mais également man ngeen dem ci chaîne YouTube bu FIE ngeen dem xool yi vérifier qualité professeur yi nga xamante ne am nañ ko macha allah muy jàngalekat yu xarañ ak FIE da ngay euh, wax anglais num la neexee.